mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax dal leen ak jàmm ci li nga xamante ne moom mooy seen yu guddi yi ñu doore ko ak kaddu yi nga xamante ne imam Oumar Sall daal dina ko yëkkati maire la def gannaaw rek kaddu yi nga xamante ne imam Dramé bu Pastef daal dina ko yëkkati jagleel ko ki nga xamante ne moom mooy gën gi mbindeef nee na nag kaddu yooyu dafa jàpp ne dafa blasphémé bu baax a baax maanaam nag dafa yëkkati kaddu yoo xamante ne warmaalul ki nga xamante ne moom mooy Seydina Mohamed loole nag nekk loo xamante ne daf koy ñaawlu bu baax a baax dafa def loo xamante ne njuumte la ci plateau ñuy waxati nag mu saaga di tuumal ki nga xamante ne moom mooy gën gi mbindeef dafa nag yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci diine l'islam te loolu nag du ko noppi waalee nee na nag gannaaw ba mu juumee di saaga ci plateau bi di saaga ñi nga xamante ne ñoom ay camarade de partem yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci seenu ndodd journaliste ba recadré ko mu jël wax ja nag tourné ko gën a dugal boppam dem sax ba ni gën gi mbindeef moomee dafa daan nag saaga loolu loolee nag nekk loo xamante ne metti na lool ki nga xamante ne moom mooy oustaz Oumar Sall ba tax na sax jamono jilee la muy jàpp mooy kàddu yee du ko yëkkati benn yoon di ko wax ñi nga xamante ne dañu ay kilifa diineem du ko jël yëkkati ko di ko wax ki nga xamante ne moo jiite lii di tarixam ba tax na sax mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax nee na nag yonente bi ca ndénkaane ya mu defoon bokk na ci képp koo xamante ne nag da nga jël ay fen daal di ko koy dendale wala sax nga koy waxal loo xamante ne du dëgg sa àtte safara di kàddu yoo xamante ni imaam Oumar Sall daal koy yëkkati ñaawlu na bu baax a baax kàddu yi nga xamante ni imaam Dramé bu Pastef daal na koy yëkkati di xas ñi nga xamante ni ñoom ñu ay àndandoom yemu ca nag di tuumaal ki nga xamante ne moom mooy gën gi mbindeef tollale nag jàpp na ne war waruñu ko noppiwaale war na ñu mën a jóg naqarlu ko ndaxte nag dafa blasphémé def faute boo xamante ne nag dafa jéggi dayoo jot na ngir nag suñu kilifa jóg daal di koy recadrer mu nekk nag sorti boo xamante ne oustaz Oumar Sall daal koy def ci bésu leneen di li nga xamante ne jamono jilee moo xew ca diwaanu waagu ñaay foofee ñaar la ñu fa teg loxo mu nekk nag liggéey bu musclé boo xamante ne octrice daal na ci fego ak bip ngir nag ñu daal di def descente fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu waagu ñaay nee nañu nag démontré nañ fa réseau bu am solo boo xamante ne dafa doon yëngatu ci njaay ak consommation produit illicite ak li nga xamante ne moom mooy mbirum drogue moo xamante ne sax tax na ba jamono jilee lañ leen détention de malfaiteurs détention de crack ak li nga xamante ni ah, moom mooy mbirum falsification ak yeneen xeetu délit yoo xam ne sax tax na ba jamono jilee ñoom ñëpp ah, seen lim toll ci ñaar fukk ak ñaar teg nañu leen loxo coow la nag boo xamante ne xew na fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu waagu ñaay ñu wax ci kaddu yi nga xamante ne ministre bi ñu denk lépp lu jëm ca biti réew di Yacine Fall kàddu yooyee mu yëkkati jagleel ko nag nomination ki nga xamante ne moom mooy doomam joojee di Sophie Zinga ah, ci benn jano ba mu doon amal ak njiit bu RTS di Pape Alé Niang émission bu solo nag lañ def ci bésub démb bi dellusiwaat na nag ci li nga xamante ne moom mooy nomination doomam jooju di Sophie Zinga nee na ba ñu koy tabb ca réewum Accra la ko fekk maanaam nag ca Ghana ko fekk nomination boobee nag dégg kott la ci am te nag ba mu ko déggee amul lenn loo xamante ne mën na ko ci wax ndaxte nag la mu jàpp mooy kii di sofi Zinga moom mais compétence moo tax ñu jël ko daal koy nag takkal bile nomination mu nekk nag kaddu yoo xamante ne démb yëkkati na ko ci émission ba mu doon amal ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Alé ñu wax ci leneen jëm ci li nga xamante ne moom mooy cérémonie ca capitale ba di à Paris la ñu daloo bi le événement maire bu Ndakaaru di Barthélémy Diaz teewe na ndaje moomee gannaaw rek invitation bi nga xamante ne Anne Hidalgo daal na koy def daal na nag honoré bi invitation démb mu nga woon ca ndaje moomee li nga xamante ne moom photo yi gis nañ ko ca mu àndi ci ay naataangoom Barthélemy Dias ci discours ba mu def mu ngay félicité ñi nga xamante ne dañu ay athlète daal di bokk ci cérémonie boobee képp koo xamante ne itam participé nga ci bile compétition rawatina nag ay doomu Sénégal yoo xamante ne dem nañ ci jongante boobee nekk na loo xamante ne daf koy rafetlu bu baax a baax cérémonie boobee nee na sax démb la ko woon gannaaw rek échange am solo yi nga xamante ne jot na ko fa def ak directeur général bu agence presse française daal di nay baax a baax li nga xamante ne a jot na waxtaan ak ki nga xamante moom mooy directeur général bu agence française de développement ngir xool nag naka la def ba am ay financement ngir yombal événement boobee nga xamante ñu koy xaarandi fii ci diwaanu Ndakaaru Lac de Guiers 2 démb la génn ci kaso bi ba mu génne nag kaddu yu mu njëkk a yëkkati bokk na ci gërëm ki nga xamante ne moom mooy mbër mii di Modou Lo mu nekk nag loo xamante ni jur na polémique fi ci diwaanu à Sénégal ndaxte nag ba ñu ko tegee loxo ba léegi fukki fan ak ñeent ci weeru mai mu woon ci kaso bi ñu placé woon ko sous mandat de dépôt gannaaw rek escroquerie boo xamante ne nag mu ngi jëm ci mbirum visa démb la ñu ko may li nga xamante ne moom mooy liberté provisoire caution boo xamante ne nag toll na ci cinquante neuf millions la fay ngir nag ñu daal di koy bàyyi mu dellu ci mbokkam l'observateur moo xam ne ni mel moom nag de guerre ba mu génnee la mu njëkk def mooy baalu askan bu senegal di sant nag yàlla bu baax a baax baalu ki nga xamante ne moom mooy waajurum bu góor ndaxte nag jàpp na ne sonn na ci ay mbiram waaye tamit gërëm na bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo na ko bu baax a baax ci jamono boo xamante ne ñu bëri dañu jàpp ne dafa xar Balla Gaye ndaxte nag tudd ko benn yoon ñu bëri nag di laaj ndax Balla Gaye dafa seetaan ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers 2 ca kaso boobee nga xamante ne fa la nekkoon coowal Lac de Guiers 2 kenn déggul benn yoon Balla Gaye daal di ci àddu di nag jàpp ne ñaari mbër yooyee dañu am ay jafe-jafe lu ci mën a am àllarba bi ñu génn Lac de Guiers 2 nee na nag am na tournoi de lutte boo xamante ne organisé woon nañ ko ca prison boobee mu nekkoon mbër yu bëri teew woon nañ ko ku ci mel ni Modou Lo Gris Bordeaux Eumeu Sène ñëw woon nañ nag teewal bile événement nga xamante ne ñu ko doon amal ca kaso ba ngir jàppale ñi nga xamante ne dañu nekk nekk ci kaso bi caabi féete leen ci gannaaw mu nekk na kaddu yoo xamante ne Lac de Guiers 2 la ko def kaso ba nga xamante ne fa lañ ko tëjoon ba mu génnee ngir dellu ca këram gannaaw rek ba ñu ko mayee li nga xamante ne moom mooy liberté provisoire Abdoulaye Seck di doom ci Idrissa Seck gannaaw rek démb ba ñu jotee ay xibaar yoo xamante ni mu ngi doon wax ne juge bu ñetteelu cabinet bu tribunal grande instance bu Ndakaaru may na ko liberté provisoire bu yàggu dara nag dina génn ay waxtu sax la ñu doon wax waaye nag xibaar yi ci yeesaat ca mbir yooyu mooy nag procureur de la république dafa dàq demande de liberté provisoire boobee nga xamante ne doon na ko def dàq dogal bi nga xamante ne juge ba jël na ko ci ay mbiram nee na nag duñu ko bàyyi mu dellu xibaar yooyu libération ci xëtu atayam gannaaw rek bañ koy toppee coowal trafic international de drogue ñu dem nag ci yenn ci point yi mu doon nag amale bile commerce ne nañu nag ci hôtel teeru bi la amaloon nag ab sitam boo xamante ne bañ fa demee fekk nañ fa ay bouteille d'azote ak yeneen i découverte yoo xam ne sax dafa gën a dugal kii di Abdoulaye Seck actrice ñu amaloon nag yile opération tegoon nañu ko loxo tegoon loxo itam yeneen doomi aadama ci weeru mai bi ñu ak génn la ñu amaloon yile arrestation boobee ba léegi nag ñu ngi ci kaso bi yeneen xeeti drogue yoo xamante ne lii nga xamante ne moom mooy trafic ba ñu ko doon def digg Gambie Guinée Bissau Marseille jàpp Sénégal drogue boobee ñoom ñoo ñee ñu ko doon dugal fii ci réew mi ba tax na sax ci weeru mai ba léegi ñu ngi ci kaso bi Abdoulaye Seck nee nañu nag mu nekkoon cerveau yi les opération maanaam nag mu jiite woon bi les trafic jamono jilee bu ñu moyul dina des ci kaso bi dogal boobee nekk loo xamante ne procureur de la république moo koy sàkku ci ay mbiram jërë bi nga xamante ne nekkoon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jàngeen jëf